abonnez-vous ci sunu FT FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen di am ay xibaar. taleen ak jàmm seen FTTV Sénégal juriste bii di Ayoba Fay, écoutez na ay cadeau. daal di koy jëmale ci message yu kii président Macky Sall bëggoon a lancé sénégalais yi ci dernière sortie bi mu ton amal ci réew Sénégal mais kii président Macky Sall ci sorteem bu mujj bu mu doon amal ci réew di Sénégal message bu mu ci njëkk a lancé moom que ne ndogal bu bàyyeekoo ci conseil constitutionnel du ko suba ne lu tax mu wax li di mel moom que conseil constitutionnel di jël ndogal di dàq ndogal lu mu te muy élection ci Sénégal ne foofee amul benn yoon conseil constitutionnel waxee foofee ngir kiit président Macky teewul kii di président Macky Sall daal di défier waa conseil constitutionnel la daal di oote ab dialogue national mais ginnaaw loolee ba candidate bii di Rose Wardini waxee na dafa retiré candidature am waa conseil constitutionnel dañoo wax que ne ak liste 19 candidats yu des moom la ñuy wéyalee processus électoral bi te ne kii président Macky Sall ci dialogue national bu wootee ne dañuy waxtaanee ndax dañuy recommencer waat processus électoral bi wala dañuy wéyandil la. processus électoral bi ne fofé tamit kii président Macky Sall dafa défier waat waa conseil constitutionnel lindi mel nak lu muy moy que ne kii président Macky Sall premier tombe bu mu doon wax sénégalais yëpp moom mooy que ne du respecter décision wa conseil constitutionnel ginaaw lindi mel ki di yankobo fay dal di wéyal né ñaarelu tombe bu ki di président Macky Sall bëggoon a wax Sénégalais mom moy que ne après le 2 avril du quitter pouvoir bi né lu sabab lu tax mu wax li mel mom moy que ne. kii président Macky Sall ci dialogue national bu mu wootee foofee moo ngi wax naan après le 2 avril la ndax après le 2 avril la dina continuer di nekk président ci réew mi di Sénégal te ne loolee waa conseil constitutionnel dañ cee wax lu leer te moom mooy que ne le 2 avril la moom mooy bés bu mujj bu kiit président Macky Sall di nekk ab président ci réew mi di Sénégal ginnaaw li ni mel kii di Yankhoba Faye daal di wéyal ne. ñetteelu tomb bu kii président Macky Sall bëggoon a xamal Sénégalais moom mooy que ne daa bëgg a dugal benn loi d'amnistie ngir ñu daal di koy baal moom ak membre gouvernement bi ci ñaawte fi ñu amal ci réew mi di Sénégal ne ñett tomb yooyee la kii di président Macky Sall doon wax Sénégalais yi ginnaaw ba muy jàkkaarloog ñoom. abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di